ñuy waajal màggalug Mbàkke Kajoor édition 2020 bi tax ñu amaloon ndaje mi nga xam ne CDD la ci Mbàkke Kajoor doon waxtaanee mbooleem ponk yi nga xam ne jëm na ci màggal gile ci njiitalul adjoint préfet bu Kébémer Souleymane Touré ànd koog chef de service yi ak comité d'organisation màggalug Mbàkke Kajoor gi Serigne Cheikh coro Mbàkke mi nga xam ne moo ko jiite ñëwaat na ci ponk yi nga xam ne waxtaanee nañ ko ci ndaje mi. maanaam gendarmerie nationale ñoo ko yore kon ñu maslaa ak ñoom. déggoo ak ñoom ba li nga xam ne moom la ñuy santaane ñu bañ koo def mooy dafa am yoo xam ne dañ ko fee digle am ñu fi tere yi ñu fi tere bokk na ci euh, man a moto yu ndaw yi yi nga xam ne ay deux roues yu ndaw yi kenn bañ ko fi indi ndax ko fi indi dañ koy nangu oto ñu bañ a surcharge si itam fi surcharge dañ lay wàcce ndax li ñu leen wax mooy dëgg kenn du ci masla te li ñu bëgg mooy ñëpp ñëw ci jàmm nekk fi jàmm delluwaat ci jàmm ak salaam wàllu santé bi itam mooy ministre de la santé maanaam ambulance yeeg dotation médicament bi ak euh, poste avancé yi ñu fi war a def ci dëkk bi ñaanu ko service d'hygiène ak euh, waa euh, Croix Rouge ak yu mel noonu. waa Sénélec li ñu fa war a liggéey mooy poto yu damm yi ak euh, yu mel noonu ak fil courant yu dagg yi poto yi poto yi poto yi la bant la léegi ñu sàkku ci ñoom jëfandikoo poto yi nga xam ne mooy poto ciment yi. su ko defee yàqu gi dootu gaaw. màggalu daaw gi am na ci yenn fànn yoo xam ne xawoon naa sooxe loolee nag ki nga xam ne moo jiite comité d'organisation bi comprendre ko di ci indi ay leeral. xëy na daaw am na tuuti ci ay manquement waaye danañ ko comprendre nangu ko ndax dafa tombé woon màggal gi dafa tombé woon ak euh, ouverture campagne électorale bi kon lu ci am tuuti ci ay rëq ay manquement danañ nangu ni loolu rek moo ko waraloon waaye incha allahu. préfet moom rassuré nañu ak chef de service yi nga xam ñu ngi fi woon. dëkk bi nga xam ne moo di Mbacke Kajoor bi fii Serigne Cheikh Sidil Mokhtar di nekk am na fi chantier yu bëri yoo xam ne dooroon nañ ko fii waaye ba fi mu toll nii àggaleeguñ ko loolee Serigne Bass Thioro Mbacké di ko fàttali nguur gi. Eh, tàmbali woon na fi ab brigade ak benn centre social boo xam ni tey màggal gi su ñëwee mën nañ fi def réunion yi mën nañ fa dal ay gan nga xam ni liggéey bi mois rek la waroon am waaye boobaak léegi toll na ci ñeenti at yoo xam ne àggagul te vraiment euh, yaakaar naa ni agité bi ko yoroon. moo ko entrepreneur bi li waroon seen diggante AGETIP defoon na ko. màggalug Mbacke Kajoor ñu naan ko jumaadal ola ñuy màggal bés bi nga xam ne ci la Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacke gane àddina bés bii nag Serigne Saliou Mbacke moo leen ci joxoon ndigal ñu koy màggal ren jii nag màggal gi mi ngi fas yéene doon le 23 janvier 2020 waaye balay boobu am na CRD boo xam ne daañu ko amal ca Louga ngir jëlaat mboole matuwaay yi nga xam ne jëm na ci màggal gile.